xam nga ni Ndakaaru neex na waaw aha c'est ça eh? bilay ni nga Ndakaaru xam waaw waaw non waroon nañ taxaw ci caméra waaw bu leen ñu dégloo ñu dégloo s'il vous plaît Euh, damay nuyu. ñu ñëpp. di sant ñëpp. di gërëm ñëpp. ndax euh, kàddu bi d'abord kàddu ngërmandel ndax fii ñi fi teew. bu fekkee ni dañu fi nekk daanaka. timis 6 heures ñenn ñi ñu ngi fi ba minuit bi ñuy tàmbale bi ñu paree timis 19 heures ba minuit 30 muy lu ëpp juróomi waxtu ñu toog ñi fi nekk ñëpp toog fi ba heure bi te ñun ñu fi dëkk ñëpp ñi fi teew ñëpp nekk ci carré bi dafay won ni li ñuy def bëgg la cofeel la engagement la jàppale donc képp ku fi teew muy koñ bi ñëpp am na sànq ku ma wax ndax imam mu ngi fi suñu papa Moussa di délégué de quartier mu ngi fi toog depuis 19 heures ba heure bi mu ngi ci fi toog wax naa ko imam Cheikh Ndiaye mu ngi fii ba léegi toog notable quartier bi yëpp suñu mag yi suñu ndijaay yi suñu papa yi ñëpp ci biir koñ bi ñu ngi fi toog suñu papa yi tawat sax ñëw nañ toog ci biir fii loolu ku ko am su ma ñoom papa Zal Bey defe naa su ma mag ñoom dan puy ñu ñëw toog fi notable yi fi toog ñoom grand Doudou Dieng ñoom tonton Jules suñu mag la Souleymane Dia notable yi fi toog yépp defe naa kilifa képp kuy kilifa ci biir koñ bi loolu nag dafa am lu mu firnde ci koñ bi euh, bari na ñoo xam ne nii feebar nañ doonte dañu ñëw toog fii ci notable dafay firi ni koñ bi solidarité mu ngi fi am moor Gueye suma mag suma xarit monsieur le maire maa ngi koy tooñ léegi du toog ci tànt doonte monsieur maire la day politique ci tànt ba heure bi mais nag xam naa lim mu fi seen pend moo ko fi tax a toog wax na ko ci kàddoom sànq nii ñun am nañ chance ci koñ ci booloo ci nekk benn parce que ñun ñoo bokk lépp fii dëkk cosaan la ñoo bokk lépp muy Mor muy man muy Alioune Badara muy xale yi nekk ci koñ bi yëpp dama jàpp ni li ñu war mooy jàppalante li ñu war mooy bëggante li ñu war mooy gën a jaxasoo li ñu war mooy ànd ensemble yéenante jàmm jàppalante pour dem donc maa ngi nuyu kilifa yi fi nekk yëpp moor maa ngi lay nuyu maa ngi lay gërëm maa ngi lay sant sa taxawaay maa ngi nuyu mbokk yi fi nekk yëpp ñoom grand Doudou wax naa ko grand Jules bu defe naa ko ñëpp ngi fi woon euh, Paba Dieye ñoom a ah, vraiment notable yëpp grand Pape man ak moom ñoo ànd ñëw mooy grand pape ñoo ànd ñëw mu toog fi ba léegi euh, vraiment awma seen fay suñu grand Badou Faye nga xam ni suñu mag la tamit si koñ bi maa ngi koy nuyu di ko fay bu baax a baax a baax a baax di nuyu jigéen ñi c'est vrai que defoon naa liste bi mais dama bëgg a jaar parce que guddi na dem si l'essentiel bi defe naa luy groupement de femme ci biir quartier bi mu ngi fi woon teew parce que bi ma ñëwee ma toog gis ñi fi teew ci koñ bi vraiment damay remercier di féliciter Oumou Diop suma rakk suma sœur moom xam na li ñu bokk ci liggéey bi nga xam ne nii liggéey bu am solo ñoom def nañ ko ci biir koñ bi ànd ko ak komité bi ñoom Rama Ndiaye ñoom ñëpp vraiment jigéen ñi nekk ci koñ bi ñëpp liggéey nañ parce que waa koñ bi ñëpp ñu ngi fi teew président groupement koñ bi yëpp ñu ngi fi teew vraiment yéen ñëpp lu ko commencé si ñoom tànn asi di continuer maa ngi leen di ziar ñoom faati euh, bu ma limee damay juum yéen ñëpp ñi fi jël parole ñëpp maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant euh, xam nga ñi fi nekk pratiquement mun naa def deux heures de temps di remercier benn par benn parce que mun naa lim ñëpp parce que ñun ñi fi nekk nii ñëpp su may papa ñoo fi nekk sumay yaay su sumay ndijaay suma bàjjan Ndey Xadi Bey maa ngi ko gis moonte dafa tawet si ngoon ba léegi mu ngi fii toog si buntu kër gi su may mag su sumay rakk sumay doom sumay jarbaat te dégg naa léegi ak ay samay sët ñoo fi nekk donc ñëpp mun naa jaar seen tur donc ñu baal ma ko rek ñu dem ci ci ci tontu yi parce que li tax ñu ñu ñëwoon fii dañu am loo xam ne nii c'est vrai dañuy yëngatu ci politique mais ñun fii la ñu tàmbalee Modou mbay wax na ko du hasard man gëwuma sax hasard man gëwuma hasard gëwuma ko man gëwuma hasard le simple fait même ñu taxaw fii ci Nimzaat di commencer di def première session jokkoo ak Nimzaat parce que lu ñuy def tamit ci Nimzaat lañ koy tàmbale parce que ñun fii lañu ñu soxtoo fii la ñu dëkk fii mooy suñu cosaan le fait que ñu tàmbalee ko fii fii ñu taxaw nii si buntu kër bay Baye jóg Diop euh, Modou bay tàmbale na wax na ko léegi parce que sama tàmbali politique ndax sax ma politique biir wax naan Nimzaat defe naa si Baye Dame la jóge donc loolu kon fii la jóg def naa boobu luñ si bi may tàmbali dañ si teg dama tàmbali politique fii tuuti lañ si teg ñu sos kër gi parce que lépp kër gu mag la woon fële mbéyeen donc bàyyi daam fi ma jaar ak moom si àdduna ak li mu def ci man loo xam ne kenn du ko wax ci mbooloo waa kër gi ñëpp xam nañ parce que dafa ma jël xare aar ma yiir ma jàngal ma àdduna teg ma ci yoonu àdduna bu ñuy avancé boobu may wax na dëgg waaye daaw moom mu njëkk sampal meeting fii moo ma ne da koy def li ñuy def nii ci buntu këram bi mu ma koy wax ni mën nga ko def te ding ko def te wax naan si sa loxo lay mujj fii da fi war a taxaw loolu ëpp na ñaar fukki at dindil ñaar fukki at samay at donc loolu moo tax su ma taxawee su ma su ma gisee xale yi fii li ñu wax ma gi dégg Pape Moussa ma dégg Pape Mama ma gis ñoom ñoom Imam Cheikh ma gis xale yi ñoom Modou Diouf xale yi ñi fi wax ñi fi wax su ma ko dégloo damay am fierte damay am fierté parce que ñun bi ñuy nekk xale amuñu woon peut-être ci yenn yi ay modèle amuñu woon modèle peut-être amoon nañ bëgg-bëgg amoon nañ ambition bëggoon nañ dem fenn fii mais amuñu woon ci ñu ñu gis ay modèle mais su ma gisee xale yi tey taxawaay bi ñu am si leadership ñu ñeneen ñoo ñu doon jiite mais du woon ñun si leneen moo nekkoon suñu bopp mais su ma gisee xale yi gën a bëgg seen bopp gën a am ambition xam ni c'est possible c'est possible li may wax si suba benn xale man bugguma kuy wax soxla walla am problème di yërëmtalu nit day gëm boppam am ambition rayante am jom parce que loolu moo si génnee nit ñun ñi ñëpp ñoo yem man fii populante être am na jeeg ju nekk fii suñu rombaan ñoo ñuy jox fukki dërëm walla juróom ñu jënd suukar ñu nekk fii si jotaay bi donc lu ñu dañ naan yeewu suba teg fii këriñ boyal ko teg baraada bi def ci ndox amagul warga amagul dana am jeeg bu baax bu jaar nii ci biir jumaa bi parce que miiree guñ ko jox ñu ñu jënd wàll keneen jaar jox ñu ñu jënd suukar foofu lañu tàmbalee donc nekk fii ci jafe-jafe ça ne veut pas dire que loolu dama koy wax ndaw ñi sama doom yi sama jarbaat yi xale yi fi nekk si possible mais dafa laaj dafa waxtaan wax bëgg si la c'est pas c'est difficile oui mais dans la vie malgré jafe-jafe ñi gën a endurant gën a am pas-pas ñoom ñoo si génn donc ti peut-être dund am na chance am na accélérateur parce que dundu destin la ñun li ñu nekk da ngay dem di avancé mais plus ngay avancé ngay am chance nga daje kenn koo ko pousse la nga daje keneen mu poussaat la nga daje keneen mu pousse la c'est comme ça qu'on s'en sort dans la vie mm-hmm. donc il faut que ñu joxante loxo ñu gën a jàppalante ñu gën a am solidarité donc Pa Moussa su ma leen gisee déglu leen ñun mun nañ dem defi leneen parce que war ngeen gën a mun a taxaw si koñ bi ak ci commune bi ak si département bi il faut que ñu am fulla suñu bopp rek farlu ci li ñuy def gëm li ñuy def parce que loo amul fulla farluwoo ci gëmoo ko du la jural dara c'est ça le secret de la réussite dans la vie et donc il faut que ngeen cultiver loolu la performance loolu dama koy wax xale yi ñu téye ko donc vraiment maa ngi am fierte ci yow fierté bu baax a baax a baax a baax a baax Pape Fall suma suma rakk la ma jarbaat la parce que su ma waxee fierté parce que concept bi du question parce que li ñu fi wax message politique wax nañ ko pare man na mu fi wax politique mais ça me fait plaisir parce que moi j'aime bien la contradiction parce que dëgg ci wax lay génn ci échange séchange la dëgg di génn Pape su ma ko gisee je suis content et je suis fier parce que dama ne la su ma leen gisee ma xool nu ñu avancé nu ñu amélioré woo bu mun a jël porter un discours porter un projet construire ko mais c'est une fierté parce que plus ñuy avancer ak fu ñu mun ci dem loolu njëriñu koñ bi la mais su ma gisee tey tey une dizaine de jeune du quartier ñu nekk dans la politique ak parti bu ñu mun ti nekk mais ça veut dire que ñu ngi participer à la citoyenneté ci li avancer le collectivité et c'est une def si koñ bi te xale yëpp man maa leen tàggat ñu def ko ak fu ñu munti nekk mais ñu nekk ci c'est une fierté ñu mun a am benn conscience mun a porter benn leadership bi c'est une fierté parce que ñun ñëpp mënuñu bokk gis-gis ma li may wax si koñ bi c'est la vérité ah man fii politique ma fi de temps wu nag day am ak temps wu faar ñu man vraiment ku faral ku faralu si biir koñ bi laa wax de si biir koñ bi parce c'est politique ñenn ñi dañuy jaxase ñenn ñi dañ siy jaar. Hmm. féewal nit ñi hmm. ñenn ñi et te ñun fii dëkku bi ni ñu dëkkee benn lañ. benn lañ te li ma gëm mooy ku nekk fu la neex nga far parce que lenn nag yenn yi yëg-yëg la mais teewul li ñu war ci koñ bi li ñu war ci koñ bi. ñu def ko donc moo tax moo tax peut du ñu am tey temps ñu développer trop ci euh, ci concept bi jokkoo dañu bëgg lu tax ma jël temps sama biir koñ parce que lii dañ koy def ci biir commune bi yëpp ah quartier par quartier zone par zone tey la ñu commencé Nimzat mais après Angle Mousse lañ jëm après waxe naan kaat di ñuñ dugg Baxdaat Baye Laay dem jokkoo waxtaan ci problème mu parce que am na Pa Moussa moo ko wax am na loo xam ne nii problème mu quartier yi la ñuy wax ak zone yi parce que am nañ plusieurs casquettes yàlla may nañu casquette wu maire yàlla may nañu yeneen casquette mais fii dañu fi dëkk donc moo tax dañuy jël temps parce que parfois comme nu ko Pa Maam waxee ñu bari dañ lay woo dégguñu la mënuñu la jot mais c'est important xale yi jeunes yi suñu rakk ñu jël temps ñu toog ñu waxtaan échange public ñu jël temps pour waxtaan suñu biir jàppalante suñu biir et xam problème yi aussi et puis liñ ci mën a amel liñ ci mën a def ñu def ko parce que fii amul lu ñuy lu ñuy lu ñuy diggee wala lu ñu wala duñ fi wax loo xam ne nii mënuñu ko donc Oumou franchement maa ngi lay remercier maa ngi lay féliciter et maa ngi kontaan aussi si li ñu tàmbalee li ñu tàmbalee fii ci yow euh, defe naa buntu kër gi am na lu tuuti lu ma xam si nuñ ko mooñaalee et gëm naa ni du hasard ñu commencé fii et du hasard ngeen tànn buntu kër gi euh, ñu defee ko fii parce que yow peut-être ñu bari xamuñu mais man xam naa li nga xam ne nii moom laa siq ak Baye daam ak li nga xam ne nii siq nañ ko ci àdduna eh, loolu bu wanee ginnaaw àdduna ma bàyyi kër gi loolu aw ma kóllëre peut-être peut am na lu mu def si man sax lu mu deful peut-être si ay doomam donc vraiment maa leen di remercier yéen su may sœur ngeen kër gi suma suma kër la c'est vrai que doléance yi bari na dégg nañ ko mais li am solo ma mën ko wax mu gaaw mu euh, noonu bëggoon naa ñëw ci doléance par doléance ah. kontaan naa trop tamit gis ñoom soxna Fatima Ndiaye ah GIE euh, ADSE xale yi vraiment parce que defe naa pasal bay mu ngi fi woon ñun bi ñuy nekk gën a nekk bi ñuy nekk lycée defe naa ñeenti ñeent wala juróom lañu woon ci biir koñ bi ñu nekk lycée defe naa ñeent juróom ñeent lañ woon si biir koñ def naa Ousmane Sey la woon man góor Gora Beye ak euh, maam maam Biége Sala fële en tout cas matuñu woon juróomi élève lycée si koñ bi ñu nekk lycée limon la tey su ma ñëwee si koñ bi mu gis autant d'étudiants waxuma lycée waxuma lycée mais autant d'étudiants autant de cadres de jeunes cadres xale yi je suis fier ñu ngi yar xale yi suñu yaay suñu papa yi góor góorgóorlu parce que bari woon fii ñun ñu nekkoon ñu jàng nekkoon lycée ah man bi may nekk lycée peut-être ñeent lañu woon fii bi ñu nekk étudiant ay ñett ñetti étudiant lañ si biir koñ bi donc aujourd'hui il y a des centaines d'étudiants dans le quartier donc ça veut dire que on avance bu ñu xeeb loolu nañu gën a continuer si loolu parce que bu ñu nekkee si zone yi li ñu si mun a génnee mooy jàng mooy jàng métier wala jàng école amul beneen solution àdduna foo munti nekk si àdduna li la ciy gën mun a génne mooy métier wala jàng école ñaar yooyu amul beneen amul troisième voie am na ku ko wax sànq c'est vrai man <laughs> ci sama xam-xam ak sama liggéey ah même si yëngatuuma si temps yi trop mais c'est vrai sur sur sur l'emploi il faut que ñuy encadrer jeunes yi c'est extrêmement important c'est vrai xam naa Babacar li li li nekk problème euh, ci ci ci ci ci quartier bi xam naa problème yëpp parce que amul problème bu fi am boo xam ne nii man dunduma ko ci sama àdduna donc xam naa problème yëpp luy problème fii si biir kër xam naa ko du luñ may nettali xam naa problème yëpp Euh, jeunes yi d' abord première doléance bi ñëw na lu bari si électrification bi je pense que bi ñu demee fële defe naa si Kumba Ngom wa am na engagement bu ñu jëloon si leeral koñ bi je pense que am na effort yu bari yoo xam ne nii def nañ ko si commande lampe yoo xam ne nii si euh, biir koñ bi mais dinañ ko continuer parce que am na euh, koñ yu des ci biir koñ yi mais li ma mën a wax encore si quinze jours yi di ñëwaat Euh, incha allahu rabbi lamp en tout cas yi nekk si pourtuuru Nimzaat bi yëpp dana tàkk waxoon nañ ko waxoon nañ ko yaa yaa yaa trois semaines bi ñu defe naa si Sénégal wala fële euh, am na effort defe naa si trois semaines yi am na amélioration changement am na changement am na changement. waaw li fi des. li fi des wax nañ Moussa délégué de quartier Moussa Ndoye bu subaa pour ñu compter exactement lampe yi nga xam ne nii tàkkul ci biir koñ yi incha allahu rabbi bu lëndee loolu ak maire yi dinañ taal yëpp en tout cas ci semaine ba la ñuy mais loolu ci biir Nimzaat donc donc donc donc donc boobu su yéexee si yow la ah délégué bu yéexee si yow la euh, Absa maa ngi lay gërëm maa ngi lay sant sa liggéey sa taxawaay Absa maa ngi lay gërëm maa ngi lay sant parce que yow da am cawarte leadership te nag macha allah tu es une grande femme politique. une grande femme politique donc mes respects. yaa ngi liggéey parce que bëgg nga li ngay def. lépp defar ak bëgg. te loolu vraiment maa ngi lay remercier encore une fois te lu ñu taxaw. mënoon nga sax tey gis mais macha allah te fu ma taxaw si biir koñ bi Nimzaat yow ak ma gis leen ngeen taxaw donc maa ngi lay remercier bu baax di remercier wax naa ko sànq ñoo euh, groupe dëkkandoo dinaa si ñëw euh, su clando yi ñoom xam naa taa aas yi yow moom mercredi la ñuy gisee incha allah 17 loolu loolu loolu loolu. mais Alba taal nañ ko semaine bële waaw foofu nag foofu nag yëmbal la de foofu baa foofu sama rakk Baara Gueye la danañ xool ak gars yi nu ñu mun a duggee foofu mais mais waaw mais il faut il faut ngeen comprendre que Wakhinane Nimzatt ci tali bi la yem boo jegee tali bi ci mairie yëmbal sud la donc mais xool si nañ dugg wax naan ñaar yëmbal donc ndey ak euh, Rama defe naa wax naa si làmp yi làmp yi loolu moom loolu c'est derrière nous jàpp leen ni loolu c'est c'est vraiment euh, fii lii Kumba mbaar bi je pense que li si des côté jigéen ñi moo des mais parti góor yi c'est bon loolu y a problème wax naa ko jour def naa wax naa si déjà ak Fatou Kumba euh, ñoom soxna Daba waaw d'accord loolu ak imam Bousso moom incha allahu rabbi je sais que daayira maam jaara yi nekk fii yëpp seen seen soxla benn la mooy kër gi ñuy tabax euh, poroxaan loolu am na lu ñu si waxoon fële déjà bi ñuy waajal poroxaan incha allahu rabbi dinañ si continuer en tout cas def si suñu wërsëg jàpp si waaw suñu participation loolu incha allahu rabbi mais vraiment je pense que koñ bi ñëpp ñu ngi fi woon Euh, vraiment grand yi waa mbaar mi aussi ñooñu foofu su may mag kese ñoo fa nekk euh, dinaa ñëw mbaar ma incha allahu rabbi ñu waxtaan comme ni koy defee très souvent foofu suñuy mag ñoo fa nekk vraiment maa ngi nuyu suma grand frère parce que xam nga wax nañ lu am solo sànq ci histoire wu Nimzaat fii cosaan la donc il faut que ñu gën a jàppante ñu ëpp am solidarité mbaata ak àcce yéen réglé nañ suñu problème ndox pare jarul wax ci kaw euh, alors léegi mu des mo euh, moo bëgg a wax benn affaire juste rek am na loo xam ne foofu laay daanelee sax peut-être li si des parce que échange yi dam Pape Moussa tu as raison uh-huh. il faut ñu pavé koñ bi man li mu mun a engagé wu ak euh, mu mun a engagé tamit euh, suma mag Racine Talla nga xam ne mooy maire Wakhinane Nimzatt muy suma mag suma xarit euh, si programme si ambition bi ñu am pour Wakhinane je pense quand même genn wàll bi nit ñi gis nañ avancement jàpp naa ni ak ak genn wàll bii yéen a ngi gis avancement loolu moo tax nag di jox seen bëgg ñu leen jege xam problème yi mën na saafara problème yi mu am solo loolu na parce que Wakhinane Nimzatt dafa am muy un maire ak une équipe municipale ñoo xam ne ni ci dëkk bi lañ dëkk te li leen soxlaal li leen soxlaal mooy seen kéem kàttan bu ñu mun pour que dëkk bi avancé jëm kanam mu nekk te lu ñu am lu ñu mën fii lañ koy indi ça c'est je pense que am na effort yu ñuy def jëlee ko nii ci suuf ci électrification bi loolu moom commune bi yëpp dana leer nañ parce que loolu préoccupation la priorité la ci sécurité ci nit ñi ci jigéen ñi ci ndaw ñi loolu lañ koy taal si pavage bi je pense que avec le maire am nañ programme ak ambition am na lu ñu waxoon ci cinq ans yi yéen a ngi koy gis ni ñu ko defee si buntu mairie bi ni ñuy embellir ville bi noonu la ñuy duggee ci biir quartier yi NIMSA je pense que par moom mu ngi fi mooy toppatoo yooyu si mairie bi tali bii nii en fait dañ ko suspendre parce que dañ koy pavé problème bi mooy ñu ngi defaat ay études supplémentaires parce que nu ñu ko buggoon pavé dafay indiwaat problème parce que assainissement loolu moo tax ñu différé parce que dañ ko bëgg defar ak euh, ak système d'assainissement boo xam ne nii ndox mi du fi taal donc li ma leen mën a wax loolu jotewul ak dara élection yi di ñëw luy xew ak mais ñetti at yi ak genn wàll des ci suñu mandat incha allahu fii dinañ ko pawe talibé ñu jóge dem alba dinañ ko pawe Euh, buntu jumaa ji nii dem nii ci kaw tali bi dinañ ko pavé man ah donc loolu loolu ñu ngi siy liggéey je pense que loolu ñu ngi liggéey ci pavage bi en tout cas du ma si continuer mais yéen yéen di ngeen ko gisal seen bopp defe naa fii dañ daan da daan jóge fii ba fële amul lampe buy tàkk waa dana gën leer buñ jógee ci leeraay bi ñu dem ci pavage euh, te lool tamit ñu ñu koy jaajëfale quand même le maire de la commune muy rasintala Talla ak équipe ak président Mor parce que gis am ñu falu ñu bokk ci yéen dafa am xamul ndax moom solo parce que maire lu ñu wax mu ne noonu Nimzaat nag waaw mais sinon Xaan wala Gaddaay wala loolu moo tax foog ngeen jàppale seen conseil yi ngeen di fal ñoo xam ne nii da ngeen leen xam jege nañ leen euh, bañ gàcce ak euh, comité mosquée bi eh, je pense que am na ñetti mbir ñu yoon wax ci grille de protection bi pavage bi pavage bi loolu décidé nañ ko ba pare mosquée bi non non loolu mairie dina ko pavé on va pavé la mosquée dañ koy pavé totalement c'est que en réalité dañ ko stoppé tuuti parce que xamul daal parce que bu ñu koy pavé dañ programme pavage bi dafa war a jaar nii dem ba ci kaw tali xam la laa doon bañ bu fi jaaree dem ba ci tali bi ñu ne xafoor dafa dugg fii pavé seen buntu kër bàyyi koñ loolu dañ ñuy xaar tuuti du ñu xam ni biir jumaa ji la ñuy continuer ko mu def nii dem si tali ba mu mun a ànd ak lii yëpp ñu bañ a wax ni dañu pare biir jumaa jaar nii si koñ donc ça c'est acquis parce que en fait dafay niru dëgg après pour yàqkat yi ah. bon salle classe yi ak grille de protection yi loolu dinañ si dinañ si dinañ wax lu dul waxu mbooloo. Euh, pavage yi. Euh, non am na lu ngeen waxul loo xam ne nii man naa ko yokk du revendication parce que loolu réglé nañ ko ci mairie bi muy corbillard non mais parce que non may leen may man man man man non. ñun ñëpp fu la yàlla na yéex yàlla na yéex yàlla na wante xam nga lu tax moo wax ko peut-être am na xale yu bari xamuñu loolu problème la ci dëkk bi yaa ngi dégg dafa am loo xam ne nii dama defe naa première fois ma wax ko conseil municipal uh-huh. ñu bari dañ ne ah Corbillard bu kenn tudd mais man position bi ma nekk dama xam ni besoin la ci biir dëkk bi. parce que peut-être am na ñoo xam ne du ñu xam mais parce que dee ci àdduna la bokk chaque jour am na mhm. peut-être fi ñuy wax ni am na ñoo xam ne am nañ problème. corbillard pour yóbbu néew Touba wala Tiwaawan wala feneen wala feneen. du yoon du yoon donc loolu defe naa première corbillard ci commune bi yegg si na ren yegg na yegg na parce que loolu dimbal parce que xam nga tey pour nga louer corbillard mu dem Touba cent mille quatre-vingt mille. peut-être ñëpp amuñu ko il ñu am ko gérer ko nga xam ne nii ku yàlla na yéex mais ku mu dal au moins carburant rek ngay jënd mu dem donc loolu yaayu jullit ku doon jullit bu xalaat lii koo tudd di nga dee yaayu jullit waaye xamoon yàlla na nga gudd fan waayu yàlla na nga gudd fan na amiin amiin léegi nag léegi ñu tëj waaw léegi waaw baal ma dan ni waaw léegi sareet yi nga xam yeggal yi waaw xam nga xam nga may ma rek ma daaneel ak jigéen ñi léegi euh, defe naa yeneen revendication yëpp si jigéen ñi <laughs> corbillard bi moo mais DG yaaju moo si ñëkk a dugg maam Seye moo si ñëkk a dugg yaaju moo si ñëkk a dugg yaa si ñëkk a dugg. waaw léegi mais vraiment. maam Seye moo si ñëkk a dugg. defe naa am na am na am na message bu ma bëggoon leneen tamit waaw noo dafa am dafa am ñetti dafa am non ñu dégloo dafa am ñetti ñetti mbir yoo xam ne peut-être laaj ñu ñu ko mais dañu jàpp ni ñun bu ñu nekkee fii peut-être position yu nekk dañuy xam pro dana am problème yu ñu xam mhm. yoo xam ne parfois nit ñi duñu ko gis dana jàpp ni ambulance yi problème la woon tey ak maire jënd nañ ñeenti ambulance poste de sante bu nekk wax naan Nimzaat def nañu fa ambulance mhm. poste de santé gàddaay moo ko amul woon def nañ fa ak ambulance waa import di maa ko def mairie ko def Racine Talla moo ko def mais def nañ ko am na lu commune bi amul woon jënd nañ ko muy camion hydrocureur parce que parce que parce que besoin la ah. camion vidange mooy hydrocureur mooy camion vidange mais boo xam ne nii mairie bi moo ko jënd pour disposition population bi ci nu gën a oyofee pour pour pour euh, vider foos affaire yooyu parce que c'est un besoin loolu aussi loo xam ne nii jënd nañ ko yegsi na. Euh, di ngeen ko gis ci fan yi muy daw ci biir muy daw ci biir muy daw ci biir dëkk bi muy daw ci biir Nimzaat waa Kali yéen su may xarit nga léegi léegi léegi bon message politique bi je pense que sama gars yi wax nañ ko ñoom Pa wax nañ ko ñoom Fatou Coumba wax nañ ko ak sa sëy wax na ko xale yi màgg nañ mën man ma fi wax politique. Ah. xale yi nga doon mun li ñu wax man mun munuma wax lu lu raw li ñuy wax donc tey bàyyi bàyyi féetal naa lépp am na lu ma waroon wax sax jëmale ko si biti ak li ci xew-xewu réew mi mais mais mais bàyyil dinañ ko wax si yeneen circonstances. xam naa ñu bari ñu may xaar si biti parce que semaine bi yëpp ñu ngi may laaj pour ma wax. dama ne woon Nimzaat laa koy waxee mais bàyyil ba maa leen bés ah. hmm? hmm? jigéen ñi kontaan naa sama sœur maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant am na lu ñu defoon daaw. am na lu ñu defoon daaw mais man li ma bugg mooy ñu organiser wu ci koñ bi nekk benn liggéey ay ab sa am na initiative bu ma wax euh, dëkkandoo ak conférence bu ngeen di def le 17 mars tout ça c'est bien c'est bien mais man de lu mu mun pousse leen dinaa ko def mais loolu c'est même pas lié à la parce que fii laa dëkk te xam nañ li nekk ak maire yi li ñuy daj mais groupement yi ni ngeen organisé wu nee nañ ma vingt groupement moo fi am souvent am na sax ñu bari ñu may àndal ñoom nday mati ñu dëkk jéggi tali ne les côté Waxinaan kaat mais loolu dafa am loo xam ne nii loolu spécifiquement Waxinaan ba mu daj si biir koñ bi kese laa koy def parce que munuma ko si def si yeneen koñ yi wala moo wërale ko parce que fii laa dëkk ñi ma àndal ñëpp aussi ñu dëkk ci yeneen koñ il faut ñu comprendre lool waa dinañ ñam mais nu muy wëree fii. maintenant vingt groupement yi nga xam ne nii ñoom ñoo fi nekk vingt yi. Mhm. est-ce que d'accord ngeen ni vingt groupement ñoo fi nekk. maa leen recensé ce que d'accord ngeen. vingt naa yëpp. non non dama bëgg ñu laaj. est-ce que leer na ni vingt ñoo fi nekk. looloo fi nekk est xam nga ni Ndakaaru neex na. waaw. aha c'est ça. Eh? bilay mi nga neex na.